yaakaar naa ni e, ñaari bis yu tànn denn bi danoon démb ca Diourbel ñu nga xam ne dañ ci doon waxtaan ak di weccante xalaat ak les forces de défense et de sécurité c'est-à-dire police gendarmerie douane pour capacité waat leen ñu gën a xam circuit médicament bi gën leen a sensibiliser ci danger médicament bi loolu forme de sensibilisation la ci ñenn ñi ndax ñooñu daf ca am taxawaay bu am solo bu ñuy taxaw surtout ci circuit médicament bi tey nag fii ñu tànn fi waxtaan ak askan wi ci seeni représentant maanaam woo fi kilifa diine yi woo fi kilifa a aada yi woo fi kilifa nguur gi pour sensibiliser waan delluwaat leen rek xam nga la ñuy wax ne euh, la la la la répétition elle est pédagogique donc yàgg nañoo wax waaye nag tey dafa di bis bu spécial parce que dañoo woote woote ndaje woot fi kilifa yi pour gën a wax ak ñoom ñu dégg parce que jàpp naa ne saafara bu dee am ci ñoom lay jóge Euh, ndax ñoom ñoo mën a jël ay décision ñoom ñoo mën a jël ay mesures ñun wax rek lañ ci mën ak wax ci li ci xam-xam wax léegi nag bu fekkente ne nag wàllu jël kii bi la ñoom loolu moo waral ñu woo leen pour sensibiliser leen ci danger bu nga xamante ne nii moom la garab yu baaxul di def ci aw askan te aw askan wu wérul yaakaar naa dutal dara aw askan wu wérul du taal liggéey aw askan wu wérul sécurité mënut am aw askan wu wérul donc jaamu yàlla sax duñ ko mën. ban danger la garab yi indi Touba. garab yu garab yu bon yi moom danger yu ñuy indi bari na biñ ci gën a ràññee te mu gën ma ci tiital mooy insuffisance rénale renal bii nga xam ne mu ngi ne xas ci dëkk bi. nga xam ne boo demee hôpital euh, Matlaboul Fawzayni bi nga xam ne fa la ñuy defee dialyse ci liste d'attente bi ma nga xam ne ñi nga xam ne ñu ngi xaar. ñu ngi xaar ñu war leen jaliser ñu ngi toll ci ñetti téeméer trois cent personnes donc loolu ku mu tiitalul man tiital na ma te bari na nag loo xamante ne ni garab yu bon yi ñoo koy waral ndax ci naka am na faux médicaments yoo xam ne dañuy ànd ak ay impureté te ku nekk xam na ne garab boo ko naanee ci sa yaram ñaari cër ñoo cay gën a lot ndax ñaari cër yooyu ñoo koy liggéey ba mu def la mu war a def bu defee la mu war a def ñaari cër yooyu ñoo ko fay génne muy fois bi maanaam res bi ak roñoo yi res bi mooy def li ñuy wax métabolisation pour garab bi ñu mën koo jëfandikoo ak ñu mën koo gi roñoo bi mooy li nga xamante ni mooy segg garab gi ci ci ci ci yaram bi daat koy sànni ci saw bi mu mën a génn léegi nag impureté toxique yooyu nga xam ne ñoo nekk ci garab gi dañuy agressé res bi dañuy agressé rein yi Donc, ce n'est pas, pour, euh, euh pas un simple hasard que le taux, taux de prévalence d'insuffisance rénale bi am Touba am fi waaw parce que gis nañ ne ci réew mi moo fi fii ngay gis ay marché boo xamante ne nii ay boutiques yu rangaloo yu bëree bëri ubbi fa di jaay ay garab te garab yooyu kenn mënula wax lan mooy qualité bi. professeur Omar Sarr mi nga xamante ne nii moo doon def waxtaan wi tey nga xam ne ab chimiste la ab pharmacien chimiste la nekk ci laboratoire de. Euh, contrôle national des médicament def na ci ay ay ay jàngat jël na fi ay échantillon ci surtout ci yi ñu jàppee woon ci Touba Belel dem dosé ko bi mu ko doosee gis na ni euh, am na ci garab yenn ci garab yoo xamante ne nii dañ ko surdosé maanaam garab yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo pour am ngóoro ñuy wax ngóoro ngóoro keng wala nang quatre fois lañ ko dosé principe actif bi waroo nekk cent ñu def ca quatre cent soo ko naanee ci saa si sa yaram dina tàng nga yëg sa bopp waaye yaa ngi yàq say yaa yàq say organes yàq sa yaram te yëguloo ko léegi nag bu fekkee yaa ngi ciy yëg sa bopp continuer di ko naan di ko naan ko naan mu yàq ba benn instant mu yàq rein yi yàq foie bi wala wala yaa suba c'est des organes nobles yoo xamante ni yaram mënu ko ñàkk yaram bu ko ñàkk da ngay nasa. ñetti tëb. Euh, jàpp naa ne wax dong du doy waaye comme ñun suñu mën-mën foofu la yam foofu lañ ko mën a yamale léegi nag di sensibiliser ñi nga xam ne am nañu kattan ak sañ-sañu dindi ko ñu dindi ko ndax loolu la ñuy wax ñetti téeméeri déppo waaye mën na sax am ne ëpp na ko parce que amul benn étude officielle boo xamante ne ñun daal xayma bi ñu mujjoon a def tolloon na ci ñetti téeméer léegi nag comme ñoom chaque jour ñu ngi ubbi ñu ngi ñu ngi déplacé wu ñu ngi mën na sax am ëpp na ko waaye nag ñun suñu kàdd suñu suñu mën-mën fu mu yem foofu rek lañ koy mën a yemale yu mel nii nag lu am njariñ la ci yéen ñi nga xamante ni yéen ay tas xibaar seen taxawaay ci réew mi kenn mënu ko nattable message bu ngeen jàllale dina jàll ci askan wi te yaakaar naa bu askan wi xamee ne kenn buggul xaru askan wi bu ñu xamee ne consommer yenn garab yi daf leen di gaañ yaakaar naa duñ ko consommer ndax dépenser euh, wala économiser ñaari téeméer wala téeméer wala ñaar fukk boo dem ba yàq sa rein wala yàq sa fois mu indil la dialyse dialyse ku ne xam ne boo ko deful ci public bi ci privé bi nga koy defee ci privé bi séance yi trois séances yi wala semaine bi bu soixante mille donc weer wi nga bëgg cee dépenser deux cent mille ci dialyse rek garab yi ñëwagul donc yaakaar naa loolu kenn bëggalu ko sa bopp kenn bëggalu ko kenn donc bu ñu leen ci yee bañ yeewu ci rek yaakaar naa ñoom ñoo koy bàyyil seen bopp. ci wàllum yoon est-ce que am na loo xam ne tënk nañu ko baax na wala mbir yi des na ba tey. waaw ci wàllu yoon am na ay textes ñun nag jàpp nañ na textes yi mën naa gën a euh, dur mën naa gën a sévère waaye liñ fi amandi rek bu fekkonte ne ñu ngi ko doon jëfandikoo dina wàññ lu bari ndax. Euh, doomu aadama moom bu fekkente ne da koy daan ci poosam rek bu yàggee mu bàyyi la nga koy tere ndax teg si ñu fi am ku ñu jàpp ngay def euh, exercice boo xamante ni illégal ci pharmacie maanaam ku jàpp ne yaa ngi jaay garab wala yaa ngi transporter wala yaa ngi ay garab te waruloo ko def yoon daf lay daan ay amende donc amende boobu mën naa dem ba ci buñ lay doog a jàpp ba ci quatre cent quatre-vingt mille suñ la ca jàppaatee mën na tuxu ba ci deux millions quatre cent ak ñu tëj la ci juróom benn weeri kaso man jàpp naa ne loolu rek suñ ko doon appliqué euh, lu bëree bari dina saafarawu te te te te li du bëri. donc loolu première édition bi la xam nga première édition moom euh, moo baaxoo noonu te nit ñi lu ci ëpp dañuy xaar mais kenn ku nekk ci ñoom ba ci ministère de la santé dem nañ fa yóbbu fa invitation amul benn autorité administrative wala judiciaire bu nekk ci région bi te demuñ fa yóbbu léegi nag. après lu leen téye xëy na ñoom après danañ ñu revenir pour wax ñu am na ci ñoo xam ne moom woo na woo nañ leen ñu wax xam nañ dañoo am gàllankoor loolu nag du ñu teree ñun lu ñu war a def ñu def ko parce que ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo jàng garab ñoo ko xam loraange yi garab di indi ci bu baaxul ñoo ko xam donc te du ñu bàyyi mukk nit ñi di ko continuer di ca dem te duñ ci wax danañ ci wax ba lu ñu mën lu ñu am nag jël ku ñu ci fekk si jàppale ñu ci falilaay alhamd ku ñu ci fekk tamit ñu nekk ca rek. ndax mooy suñu nattu moom la ñu yàlla nattoo moom ci la ñuy nekk